asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci turu sëriñ Fadilou Fall jëwriñi sëriñ Mouhamadou Aminta Fall mooy nuyu mboolem njabootug sëriñ Mouhamadou Aminta Fall gépp di jiital ci nuyoo bi rakkam yu tedd yi mu bokkal sëriñ Mouhamadou Aminta Fall yépp di leen sant te di leen gërëm ci mbooleem liggéeyi jàll yépp te ngeen jëfe ko ni ko sëriñ bi bëgge woon rawatina nag liggéeyu koor gi nu weesu muy ñaan sunu boroom ngeen daje ceeg ngeureumal sering tuba, ak ngeureumal cheikh ibrahima fall amin gannaaw lolou nak, mu di leen fàttali liggéeyub tabaski jëm keur serigne touba noni ngeen ko da defé rek na ngeen ko handi ñaari bay fall na ngeen ko handi ñaari bay fall da ngeen fa fekk di serigne mustapha Mbar ak rakam yi mu bokkal serigne bi mi ngi ñaan sunu borom nak, mu defal len ci ak jappandal ba ngeen man ko defé ni ko sëriñ bi bëggee ci barkeb sëriñ Touba ak barkeb Cheikh Ibrahima Fall ak barkeb sëriñ Mouhamadou Aminta Fall mi tax ngeen di ko liggéey amin sëriñ Moustapha Fall Falilu jëwriñi sëriñ Falilu Fall moo fi indi kayitu yëgle bi wasalaamu